asalaamaaleykum mbokki xarit yi ñu ngi leen di nuyu di leen di defal lu bëri bëri comme ni ñu baaxoo di ko defee rek altine bu jot dañuy daal di ànd ak yéen ci seen émission seetu bi di daal di nuyu nag askan wi fu waaye mënta nekk ñu ngi lay nuyu ñu nekk ci prison yi di leen ñaanal yàlla suñu borom yàlla na leen fay yàlla génne Euh, ñi nga xamante ne tamit dañoo tëdd feebar nekk fi nga xamante ne rek ñoo nekk ci hôpitaux yi wala ci kër yi tëdd feebar ñoom tamit ñu leen di ñaanal yal na leen yàlla fëgg seeni bopp tey nag je serai pas toute seule ñaatam elle n'est pas là mais donc c'est un grand plaisir la ñuy am rek daal di koy retrouver si suñu plateau nam nañ ko waaye xam naa ne téléspectateurs yi ñoo ko gënoon nam mais mais kii kan la nii. <laughs> Merci le PS, ça fait plaisir moi aussi. D'accord. Ah, de vous retrouver, retrouver également les téléspectateurs yi nga xam ne ñun ak ñoom yàgg nañ. Donc c'est toujours un plaisir, c'est un plaisir partagé. Naka mhm. mu. sant bu baax. Ça se passe bien. waaw alhamdulilah. alhamdulilah vraiment ñu ngi sant yàlla bu wér. bu wér wér wér bu wér wér wér et puis surtout fekk si la sax si suba si. waaw tey nga reprendre. waaw dañuy tey la ñu reprendre. Mhm. si waat nañ ci lan ngay wax ko téléspectateurs yi bon wax leen ni rek ñëwaat nañu et puis à chaque fois qu'on vous accompagne dañuy ñëw ak ay contenu am solo xam nga nag groupe Futurs Médias ak ñun suñu ay téléspectateurs ak ay auditeurs c'est une ah. longue histoire mhm. voilà heure bu ñu ñëwee essaie de faire maximum pour bégal leen ci li nga xam ne moom la ñuy mhm. euh, rawatina nag rejoindre équipe bu mag bi nga xam ne fan suba si Sénégal yéen rek la ñuy waxtaane ah, ah sax du Sénégal nañu incha allah andi yeneen affaire bu soriya merci beaucoup Kals namoo nañ ko comme ni mu ko waxee rek mbégteeg bànneex la ñu am donc euh, ñëwaat na dañuy ànd ak moom alterné bu jot ak lundi si seen plateau seetu bi noonu seetaan benn clip après nga jox li nga xamante ne parce que yow ne yow nekk amul réseau nekk na yow da am réseau ba ah. dama ñëw nga dolli ma rek mais dinañ leen ko jox benn par benn. jeex na kon nañ doon seetaan benn vidéo daal di dellu si Bon, moi, je trouve qu'on a bien fait. L'esprit d'équipe est là, machallah, de façon. Thank you. Thank you. trouve qu'on a bien fait. L'esprit d'équipe est là, machallah, que Dieu fasse qu'on. amoo xel waa yow amoo xel waa ñu la ko def waa yow. waaw. samay xarit bàyyi nañu ma waaye loolu du continuer samay am di jàmm weddi nañu ma man waaye du ko dindi samay dëkkandoo gedd nañu ma waaye loolu du ko dindi bëgg naa ëppna ala dara dara du ko dindi bëgg na la gis te xob ma fone waaye maa ngi toog di xaar su ma xamoon fone ma dem seeti la xamal la ne affaire bi yow la yow yow la yow la yow la yow la yow la affaire bi yow la yow la yow la yow la yow la affaire bi yow la dafay dëkkee diis bu doonu géej yaa may tere dig sa jëmm ji moo ci wetaay bëggu ma la ngir sa taar bëggu ma ngir sa alal dama la bëgg te yàlla tax nga sax ci sama bi meññ ci man yaay booy bëgg naa la dara dara du ko dindi naa la dara dara du ko dindi bëgg ma foone waaye di xaar su ma xamoon foone ma dem seeti la xamal la ne échec et mat. Voilà, genre par rapport aux investissements, donc moi je trouve qu'on a bien fait. L'esprit d'équipe est là, machallah, de façon. yow amoo xel waay yow amoo xel waay jël camion bi yow Thank you. samay xarit bàyyi nañu ma waaye loolu du continuer samay am di jàmm weddi nañu ma man waaye loolu du continuer samay dëkkandoo gedd nañu ma waaye loolu du continuer bëgg naa la dara dara du ko dindi bëgg naa sopp naa la dara dara du ko dindi bëgg naa la gis te xob ma fone waaye maa ngi toog di xaar su ma xamoon fa ne ma dem seeti la xamal la yow la. yow yow la yow la yow la yow la. yow la yow la yow la yow la. gisul ki mu miim xool ba dafay dëkkee diis bu doonu géej yaa may tere dig sa jëmm ji moo may wetali ci wetaay bëgguma la ngir sa taar di Sénégal dëkku gaynde Njaay mooy sunu gaal trees the You may say I lost my head, I may say you're already dead. You sold your soul for this little comfort. album boo xam ne ni bi mu génnee àdduna bi ñëpp ñëpp ñoo ko apprécié comme sànq rek nga ne dafa def concert ba pare génne demaat ci métro yi mu continué waat. jaay topp jaay topp parce qu'ils aimaient tellement le spectacle gospel jeune c'est un excellent album et euh, buy def spectacle yi comme ni ngeen ko gisee ci image amul benn instrument bu ko topp lépp seen yaram lay génnee. si dënn yi ci tànk yi ci bopp yi c'est quelque chose de nouveau. le spectacle de Fadou il l'a fait à Dakar. malheureusement public bi peut-être bon ñëwoon nañu mais comprendre lu woon le concept euh, fii mais gospel euh, c'est un c'est un super bon concept France dañu affaire bi jeexee nit dañ ko dox ba ci ci biti mu dugg ci métro yi ànd ak ñoom di def spectacle ça veut dire que mooy nga wax léegi xam nañu valeur am xam nañu talent bi nga xam ne moom la. et tu sais que peut-être que les gens dañuy foog ne musique bu bees la mais en Afrique ici rawatina Sénégal est-ce que xam nga li musique musique culture traditionnelle boo demee ci balante yi wala nga dem si mandrake yi wala nga dem sax des fois si tuuti portugais yi ngay gis dañuy jël benn sër teg ko fii di ko tëgg ba ba ba moom noonu mooy seen fecc kii boobu donc euh, boo xoolee am na ci ay culture yoo xam ne ne musique bi am na fa donc du ñu utiliser benn instrument mais seeni yaram seen seen cosaan voilà am na moom lañ koy moom lañ koy defee donc mu nekk loo xam ne c'est important que tout le moo tax ñu ne rek ni ku nekk na nga sa cosaan parce que dina am lu bëri loo xam ne di nga ko jëlee nee nañ leen week bi dafa nekk week boo xam ne dañ ko remplir ci euh, bonheur rawatina nag la reine du Jolof Band euh, kooku di Viviane Chidid Ndour nee naa ko elle n'est pas donc da ko méritant elle a mérité démérité wu ko li nga xamante ne rek moom mooy trophée bi trophée bi du moom moo ko moom mais sénégalais yi waaye tamit mu wax ci wax bu am solo nee na mu ngi koy delloon njukkal jigéenu Afrique te bu ñu xoolee nag wut boobu dafa nekkoon loo xam ne nii dafa seere woon seere mm-hmm. seere mm-hmm. parce que ñi mm-hmm. mu ko bokkaloon <laughs> ay kàngam yoo xam ne ni ci wàllu musique ay ndaanaan peut-être moom sax yëggu fa mais gis nga ni ku nekk sa wërsëg yàlla wërsëg kon dañ koy ñaan xam ne da koy jig waaye jig tamit Sénégal effectivement et Viviane euh, en tant que mère artiste euh, féminine bu Afrique de l'Ouest comme ni nga ko waxee tout à l'heure mérite la en plus euh, ñu organiser woon affaire bi muy waa Trace Trace Awards ñu mën a musique africaine mhm. et Viviane Sénégal peut-être xam nañ ko moom boo génnee également ci sous-région bi da nga gis ni ñu koy dégloo ça veut dire que c'est une bu international mm-hmm. euh, am mérite bu baax ci li def mais man daf may renvoyer un peu rek mm-hmm. ci euh, ce qui se passe par exemple aujourd'hui dans la musique sénégalaise des dafay concurrence boobu lañ nekk est la concurrence dafa war a nekk entre ñun les artistes qui sont au Sénégal ou dafa war a nekk ci diggante artistes yi ak yeneen dëkk yi pour man ñun la ak yeneen dëkk yi jéem a fexe ba ñu musique génn raay yi nga xam ne Viviane am na ko euh, ñeneen ñi amul ko fi à l'époque ñu fexe nu ñu ñuy def ba cette nouvelle génération également mën a am lu mel noonu pour man xeex bi foofu la nekk. non tu as raison euh, boo ko waxee parce que xam nga lu tax euh, je pense que tey loo xam ne ni yow nit ki bu ko demee jëli si sa réew lay indi sa sa drapeau lay représenté je pense que loolu lu am solo la yaakaar naa ne artistes yi dañu war a bokk nday bokk baay xool nan la ñuy defee ba mën a gën a am raay ak yeneen pays Afrique yi. artiste bu nekk bu génnee mu indi raaya album bu génn mu indi raaya donc yaakaar naa ne loolu sax dafay gën a demal suñu culture ci kanam da koy gën a yóbbu ci kanam moo gën xiiroo bi ak ŋaayo bi jaru ko parce que ak ŋaayo mhm. amul dara loo xam ne ni tey ñu koy apporteel du leen apporteel dara du ñu apporteel dara et pense que concurrent bi war a doon mooy ñu concurrencer d'abord suñu bopp mais concurrencer ak yeneen pays Afrique yi xool na la ñuy gën a jaayee suñu culture nan la ñuy gën a valoriser ñi nga xamante ne suñuy artistes lañu parce que ñu ngi def loo xam ne liggéey bu mucc ayib tey Viviane je pense que ñëpp bu waree ñibbisi ñëpp war nañu ñëw dem ah teeru si ko ah mérité na ko liggéey na ko parce que aussi je pense que nit lu mu tricher tricher mhm. am na foo xam ne fii mu yegg nit munoo tricher ba mun a yegg foofu ne dañoo xam musique mhm. xam ko saytu ko jàng ko bu ñu demee ba désigner ñu ne kii moom moom moom raaya yi donc ça veut dire que franchement dafa liggéey liggéey bu waaw elle a du mérite donc euh, ñu koy ñu koy féliciter mhm. di wax ne ñun ñëpp kontaan nañ ci Viviane ñu ngi xaar nga ñëw soo ñëwee ñu dem euh, daal di lay teeru noonu la ñuy defee rek dem seetaan kilibam ñu dem xool Sénégal she no fly. di Sénégal dëkku Gaynde Njaay mooy sunu gaal bësin dëggal ma bësin teg sa bopp waay may defe ko nii ndax bakkan jàmm la bëgg dunda sa dund bu leen faale yenn yi soxor la may nura wax ci de sax fu ma door yi de yëguma ndax sama yaram a blende joxoo ma lekk joxoo ma naan moomu loo ma yow mi lee good morning. yi de saf sama dóor yi de yëguma ndax sama yaram a blende ma lekk joxoo ma naan moomuloo ma yow mi le tomate lay dund Tomate lay dund nag borom xam-xam yi ñooy jël woy bi <laughs> daal di koy tekki nag parce que franchement daf ñu junj te junj doy na borom xel uh-huh. et aussi woy bu ñu war a décortiquer la boo toogee di ko déglu c'est pas que savourer musique mais aussi seetaatal parole yi bu baax a baax nga décortiquer ko xam lan ak lan lay wax parce que na Sénégal yàgg nañoo doon daanaan est-ce que danañ ko mujjee danañ ko mujjee loolu question boobu yaakaar naa Sénégal yi yëpp nañ ko mën a posé wu daal di koy décortiquer bien sûr le parole yi dafa riche ah ci ci le texte est kii mu àndal yëpp maanaam musicalement composition bi dafa nice mm-hmm. euh, baat bi macha allah kenn waxatu ko. vidéo bi également c'est réalisation bi c'est extraordinaire en plus de ça paroles yi aussi am solo comme ni nga ko waxee donc mën nga décortiquer. ay cax euh, ku nekk ak ñooy déggee euh, Sénégal yàgg naa doon daanaan mbaa nañ ko mujjee moom aussi yàgg nañ koo wax Kumba Gawlo yaay suñu daanaan waaw mais est-ce que dina tax ma ne leen Kumba woyam bi yëpp cax la voilà li ci nekk dafa bëri xam naa fii nag yëfu gawlo dëgg la ko def waa xam nga gawlo yi nag euh, dañu am seen woy yoo xam ne ci biir maanaam comme woyu woyoon na ko séet mm-hmm. dañ lay cax fekk ñu ngi lay yab léegi yow yaa war a mën a comprendre liñ lay wax lañ lañ lay yabee mais lii ku ko déglu aussi nga xam woy xam wax xam parole di nga comprendre lu bëree bëree di nga ko mën a décortiquer comme ni ma ko waxee man ngeen waaye seen daanaan waaye est-ce que dinaa ko mujjee elle a même dafa bi amoon yàggul dara nee na ñetti activité sama baat ma des euh, malgré loolu yëpp ñëwaat na en force elle a retrouvé sa belle voix donc yooyu aussi c'est benn force intérieure la tu sens que su ci way bi mi ngi génnee des choses yoo xam ne dañu ko euh, euh, fi mu nekkoon jógu. non dafa mës a jóge yow tamit nag Coumba moom ñu koy féliciter di wax rek woy bi tamit dafa ñëw ci bi nga xamante ne Kalz ñëw parce que tey bu ñu xoolee musique bi ni mu nekk di amee xuloo beeg xiiroo bi ŋaayoo bi Sénégal surtout. yëf yi ni ñu nekk di déroulé. polémique bi polémique bi on comprend lan moo xew ah donc yaakaar naa ne wuy yi tamit nit ñi toog te wuy bi su gën a neex wuyu détente heure sieste nga toog añ ba pare rek def mm, mm, say njarum soow wala teg sa ataaya di ko waa di ko di ko déglu di ko déglu waaw di ko enjoy waaw ah, di nga di nga di nga a comprendre décortiquer dama bëgg woy Coumba Gawlo Seck bi ngeen décortiquer ko daal di comprendre cax yi comprendre message bi parole yi et c'est important et ça va nous permettre aussi ñun ñëpp ñu am lu ñu ci jàngee donc foofu lay jaaree rek di souhaiter sama doom euh, koo xam ne nii euh, franchement sam doomu xol la euh, ma koy ak Rama fii Euh, xam nga dara neexul euh, kas nga am say ñees ñu lay woowee bàjjen ah, su may génne lii ma sol nii tout le temps moom moom mooy génnee bàjjen solal lii bàjjen defal ah lii moom papam moom rek la papam am doom bu jigéen yëkkati may ma ko ah donc Binta je te souhaite le bonheur donc sama sama sama doom la man samay ñees yëpp <laughs> euh, voilà donc non dam ñu nuroo nag moo tax bëgguma teg photom ci écran bi ma koy souhaiter rek joyeux anniversaire di ko ñaanal gudd fan di ko ñaanal wér ak xam naa su ma continuer rek damay jooy parce daf ma taxawu daf ma taxaw xale bu xale bu ma déggal la xale xale xale bu yaru la xale boo xam ne dafa respecté doomu aadama donc Binta dama lay ñaanal gudu fan bande ba juut bal e cella sellirede allah woodima allah andi ko ɓuuri e maɗa ya allah hokkuma ɗum koto nder am toon nokkirmi ɗum gokkumaɓe ɗum balde bo bu fekkee maak sa baye ñoo bokk benn ween ñoom ñoo desal man ma nekk caat nàmp te lu ma la ñaanal dina la dal seral nga sama xol li nga bëgg si sa jàng mi yal na la ko yàlla defaral ci barke Seydina ah Muhammad donc franchement dama kontaan dit tout le temps sama xaalis nekkuma aussi di ko yàq ci étude am parce que tout temps mu may indil ay voilà jàmbaar la yal na ko yàlla la fal la cat et donc euh, mu ngi waaj a ci médecine bi yàlla may daal jàmm may la ndam binta sama xol sedd na ci yow Balde Bolon lay ñaanal gudd fan di la ñaanal wér ah donc binta happy birthday to you Kals amiin yal na ko yàlla sàmm amiin amiin yaa bi xam naa dina a foofu mënuma mënuma sori parce que xam nga aussi suñu voyager ñoom ñooy nekk samay yére moo koy ranger samay bijoux su may génn bàjjen solal lii bàjjen defal lii donc euh, franchement. sa doomu xol non sama doomu xol la donc ñeneen ñi bu ñu mer. <laughs> Ah, xam voilà ñoom jeudi aussi dama bëri donc novembre ak octobre ay anniversaire ñëpp samay ñees ak samay defal mais voilà bu leen bu leen mer Alassane aussi son frère euh, barki démb la doon fête moom it anniversaire kooku sama turandoo papa la Balde Bolong Alassane ankala mi no ma judde Balde Ecel depuis euh, jàng ñoom ñëpp maa leen di ñaanal jàmm yal na leen yàlla sàmm ba seen waajur yi fekkee seen njëriñ wóolute bi ñu am ba jox ma leen rek teg ma leen seen loxo mënoon nañu wax ne dee caat laa mm-hmm. duñ ma leen jox ah, mais xooluñu loolu ñu jël ma may ma leen xam nga yuru voilà confiance bu rëy amin amin yaa rabbi amin amin allahumma amin kal ça mm. nuy waat bu baax rek comme ni nga ko waxee téléspectateurs yi nga xam ne ñi ngi ànd ak ñun ci suba ba léegi ci seetu Euh, de savoir li ñu yëg ci Fade Freddy la sortie de Carlou D li ñu dégg également ci Kumba Gawlo et bien d'autres euh, Viviane Chidid bi ñu àndil beneen mbégte ci musique sénégalaise ça veut dire que ñi ngi ci yoon bi on attend également d'autres euh, am na ñoo xam ne génne nañ ay album international am na ñu nekk ci réew mi di liggéey di ñaan yàlla que cette mm-hmm. nekk année boo xam ne quand même sénégalaise daf ci am ay buntu yu ubbeeku yu yaatu comme ni ñu ko Youssou Ndour defalee comme ni ñu ko di defalee cest dire que boo gisee tey cette nouvelle génération di andi ay raay ci réew mi sa xel dafay dal que le bi est assuré comme je disais tout <laughs> euh, boo gisee ñu mel ni ay Mbacke Dioum wala nga gis ñeneen ñuy accompagner des artistes c'est parce que li ñuy ànd ñi ñu àndal gëm nañ leen mhm. te gëm nañ ni mën nañ fi andi leneen lu weesu li nga xam ne moom la fi Viviane andi tey donc ça plaisir de savoir que week-end bi ñu génn daal neex na artistiquement <laughs> euh, loolu mooy tax rek euh, ñu a xoolee génération bi ñu ngi topp ci tànk ñi nga xamante ne ñoom ñoo leen fi jiitu jiitu leen si aar jiitu leen si woy waaye nag nañu gën a jàngaat mm-hmm. parce que jàng du wees mm-hmm. nañ leen gën a jegewaat li nga xamante ne ñu ngi ci ñoom parce que aussi nit ki boo ko jegewul euh, boo ñëwul comme li ñuy wax rek euh, loo doonul taalibe mënoo doon sëriñam donc nañu nangoo doon ay taalibe nangoo mm-hmm. jàng mm-hmm. ba ñu nga xamante ne rek rele bi nga xamante ne moom moo fi nekk dinañ ko mën a porter mu gën a facile parce que ñoom dañ leen xàllal yoon bi mm-hmm. fekk ñu fa benn xam-xam même buñ ko fekkee aussi nekkul loo xam ne grand yi ñoom dajoon nañ ko ñoom du ñu daj loolu presque ñoom mën nañ wax ne dafa gën a yomb ci ñoom donc nag euh, lu yomb aussi des fois bul bàyyi mu yomb torop parce que bu yombee ba mu ëpp dina la yóbbu foo xam ne ni tey amaana doo fa bëgg a yegg tëdd kon nañu jege ñi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekk xam woy ndaxte woy aussi mun nga woy sans instrument mooy li nga xamante ne Fada Freddy def na ko te boo jogee suñu suñu yaay ñoom ñoom Soda Mama Fall mhm. ñoom Xaar Mbay ma jaaga mhm. ñoom Kinelam mhm. fu ñu woyee rek yuuxu sa yaram dafay ay ndaanaan lañu loolu aussi woy dañ koy jàng woy c'est pas que question da koy doon waaye boo ko doonee ba pare aussi waaye gëstu bi jàng ko parce que àdduna lépp looy def rek il faut que nga gëstu ko nga am amour bi mais rawatina aussi nga am ci xam-xam parce amee xam-xam moo lay tax nga daal di avancer mooy tax aussi nga am raaya et ku xam Viviane aussi moom tamit raaya bi mu jël dafa nekkoon na ko nekk taalibe nekk si ginnaaw di aw di aw ba tey mu toll fii Coumba Gawlo Seck jaar-jaaram ñëpp xam nañ ko gis nga ko moom it tey fi nga xamante ne yegsi na parce que ku ñu dem wéykat baat rek nga am bu ñu demee ba ne sa baat heure bi mënatu woy mhm. xam naa ne même moom xalaatul woon sax ndeysanam est-ce que dina ñëwaat ba mun a mhm. woyaat waaye nag yàlla moom mhm. moom moo sàkk jaamam moom moo ko moom li mu des si jaamam ala kulli alin loolu mooy am nit ki lu muy def def def def bu yàlla àndul ci loolu rek loolu du sotti kon nag euh, nañu bàyyi lépp ci loxo suñu borom comme ñu mu ko waxee sant yàlla moo war jaam bi waaye delloo njukkal suñu borom aussi lu am solo la kon noonu la ñuy defee rek Kalz dem seetaan beneen vidéo euh, mhm. ah, mi ngi mi ngi mi ngi Istanbul actuellement ñu seetaan bu ba dem nga si seen restaurant yi mën a kii yàpp yooyu rek laay la xëy ah! la profité naa tuuti nag vacances balaa maa ñibbi yow kay dangaa vacances de bu la xool sax xanaa gisoo sa biir bi Kalz wër na ma ne wër na ma ne ndawal nga nekkoon di wër rek foofu daal ah. foofu daal beneen affaire la après dinaa la expliquer ci suuf te maa ngi nuyu également Binta Diallo euh, sister Binta Diallo bu rajo Futur Média bu groupe Futur Média Binta qui nous regarde en ce moment donc Binta Binta Diallo Jérémy Salmini maa naani ayca <laughs> ñu dem ñëwaat allez ñu dem ñëwaat te ne woy bu am solo yaakaar naa ne nag euh, ku yëkkati doo ko may la war ngaa nag booy woy mbëggeel tamit boole waale ci goro bi parce que ku <laughs> la jural sa jabar moom munoo ko fay kon Adama jaw yow nag maa war a gërëm waaw bu baax a baax yee war a lépp ah <laughs> war lépp nag ah c'est un excellent génn feneen Euh, je pense que soxla na lu mel nii aussi. effectivement parce que lii aussi moo mun a jaay seen musique bi tendance la euh, ça fait très jeune et urbain. et puis mm. Sidi Diop. Mm-hmm. il faut se rappeler pour benn histoire bu ndaw xam nga Sidi Diop hip hop la commencé ci rap bi la donc bi muy doog a commencé mi ngi ci benn groupe à Guédiawaye. Mm-hmm. di def hip hop donc ah. li xam na ko ba pare li si gën a da ko def en anglais. aussi muy non concurrent bi son bi dafa nice son bi nice na daal sous bi euh, gars yi a déglu comprendre et puis euh, ça veut dire que mi ngi xalaat euh, au niveau international ah, j'en profite également félicité waale son son producteur Matar Diop Soubatel j'ai vu également récemment rek teg nañ fi benn studio bu mag mm-hmm. à Dakar fii à Dakar au CICES donc Matar ñu ngi félicité ci loolu parce que yaakaar naa ni du rek wala benn Soubatel j'ai vu récemment également Sidiki Diabaté bu mu ñëwee Dakar dem seeti di ko mm-hmm. fekk fa Sidi ñu def ambiance bu et puis ci clip bi toppee sama xel dafay gën a dal eh, naa daal ku am marchandise da koy jaayee fu ne waaye boo koy jaay aussi da ñaan yàlla jaay ko high class yi. donc li tax ma wax high class yi il est temps aussi Sénégal euh, musique euh, nigérien bi ni mu nekkee dans le monde entier. ñëpp di ko mhm. kii donc je pense que jot na comme ni ñu nekk ñoom di defee relais bi ni ni ñu commencé di ko changer Pambalax dur dur dur bi. mais mélange bi voilà mélange bi te gis nañ ne suppu kànja moom xam suppu kànja dafa neex. <laughs> suppu kànja moom boo ci defee yeel. def ci ah. pince de crabe. musique bi aussi ma xool ñi lay summi ah? kan man man ñi sant baaxum ñoo may <laughs> <laughs> ci suma teel bi gis nga ko ah hmm, yàlla boo si am diwtiir Casamance bi mu jógee sa dëkk dama leen di waaye ñu ñëw de ah? parce que xam naa ni war nañ la sumbi de waaw heure bi ba pare xam nga seen kànja bu rattax boobu velours boobu ñor na tamit waaw gis nga waaw mën ko day gën a neex rek ah. ñoom la ñu am rek daal di dem aussi si suñu sponsor yi euh, gam yi nga xamante ne dafay réparer yaram ah Yelovat gis ngeen ko comme niñ leen ko waxee am na saabu am na sérum am na gel de douche ah, mu nekk tamit nag gam boo xam ne nii boo ko diwee lépp loo xam ne dafay ñagas-ñagas da koy daal di dindi loo xam ne tache la aussi ah, da koy daal di dindi cosmétique boo leen dem rek di ngeen ko fa fekk te njëg yomb na dem leen ngeen jënd ko nee naa leen tout rek dama ciy insister du diw boo xam ne ni dalay xeesal mais buy réparer yaram la acide de fruit lañ ko defaree te xam nag acide de fruit lu muy def ci yaram dafa baax lool dalay may parfum bu glow hmm, bu velouté hmm. kon nag euh, daw leen gaaw ngeen daal di dem jëndi ko aca mhm. donc c'est pour vous yéen ñi nga xam ne rek ñuy bàyyi xel euh, euh, di nuyuwaale également bu baax du ko souhaiter un joyeux anniversaire Fama Dione mhm. ah et les chez nous RFM tam ngeen di ko dégg bu mu di jotee ci rajo Futurs Médias donc Fama on te souhaite un bon anniversaire c'est de ma part ak de la part de Bessel yëpp ñu ngi lay souhaiter une très longue vie santé prospérité beaucoup bonheur li nga bëgg yaa ko xam yàlla na ko suñu borom def donc groupe Futurs Médias yëpp euh, ñi ngi lay ñaanal très professionnel nag ci liggéey bi mhm. voilà donc xarañ lool xama jon doom ñu ngi lay ñaanal également bi tey euh, kon nag na photo boo ma envoyé xam naa yàgg na de. Ah, mais photo bi du stade. photo bi def je pense c'était en 92. ah avec le grand Bakadjoum. waaw euh, ñu àndoon ça veut dire que lii dafay rejoindre li ñu doon wax léegi rek ci liggéey. Mm. Euh, diggante euh, liggéey loo xamante ne ni voilà daf lay. daf lay tarbiyu dara ah, ah c'était en 92 ak Viviane ah. à l'époque nga gis ànd bi ni mu yàggee mm-hmm. moo tax bi ma gisee barki dem Mbacke Dioum bi Viviane amee trophée bi il était tellement fier ah, il se rappelle de ses jours wala temps yi nga xam ne ñi ngi doon ànd ñoom ñaar mm. euh, li nga wax laay waxaat rek loo doonul taalibe mënoo doon sëriñ donc li daf ñu renvoyé ci liggéey mm. ak gën a góorgóorlu tôt ou tard di nga euh, fruit yi dina ñëw et li nga li nga ji moom ngay góob donc encourager également ñi nga xam ne ñooy liggéey mais grand Mbacké Dioum bul bàyyi parce que li nga def ah baax na mm, mm. donc image yi ça prouve que ku yàgg ci mm-hmm. loolu moo tax nit euh, wax ju jaru ko wax tuuti liggéey liggéey bu bëree bëree bëree bëri tuuti wax jóg lu bëri donc moo tax nga yegg fi nga xamante ne euh, foofu nga bëgg a yegg waaye tamit même boobu sax boo liggéeyee nit ñi ñooy tax sax nga yegg foofu parce que dañuy xam ne nekkoo di tricher li ngay def liggéey la et y a que le travail qui paye mm-hmm. donc euh, il faut que aussi nga xam bu baax a baax ni ko defee nga sonn ci mm-hmm. euh, gis nga des fois comme je dirais Khadija que oui dafay daal di coordonner mu yem ci mais da ngay xool ne donc elle fait pas des fois day def sax def loo xam ne ni waru ko def et donc ça veut dire que nit ñi liggéey rek moo am euh, moo am solo comme li may wax tout le temps rek daan doole yi liggéey ci kër yi bul xaar tout ñu ne la defal yi comme mm-hmm. euh, nit tout le temps jombal voilà def ko ah jombal sax sa patron mm-hmm. mu am euh, muy am tout le temps di la naan kay def lii kaay def lii mm-hmm. muy si bureau ba muy sa kër ga tout le temps jombal loolu bañ ko parce que nit da ngay doon bañkat la nga war a def def ko ba kenn du am buntu ba nga xamante ne dalay naan lii yaa ko waroon def te defuloo ko asgor nag da koy daal di jomb euh, gis nga dara gënta ne nga liggéey nga xam ne lii sama salaire la mu néew mu bëri dafay daal di barke waaye dafa ànd ak liggéey ànd dëgg mu ànd ak sincérité parce que bu ñu nee léegi xaalis dafay gaaw naaw des fois dama ne ah dëgg la rek xaalis naaw na mais nañu xool aussi est-ce que jox nañu ko gëddaam est-ce que liggéey nañu li war a tax bu ñu fayee ko hmm. xaalis boobu dërëm boobu boo ko jëndee tey mu daal di barke bi donc loolu aussi c'est c'est important hmm. donc liggéey liggéey rek moom mooy moom mooy yaa comme nañu ko woon euh, il faut travailler il faut toujours travailler beaucoup travailler, beaucoup travailler. donc ah y a que le travail qui donc euh, kooku di Mbacké ñu continuer tamit di accompagner parce que aussi artiste dafay daal di am ginnaaw ah. hmm, loolu lu am am solo la nañu dem seytaan beneen vidéo daal di dem si beaucoup Tarba Mbaye moom tamit xam ngeen ko ndaanaan la bu woyee rek ñëpp dañuy daal di euh, kontaan euh, mun jëmbal nag événement bu rëy a rëy foofu ci euh, Sorano Calze. voilà donc Tarba xam nga ndaanaan la moom nag j'ai l'habitude de l'appeler l'héritier parce que xam nga moom. Hmm. doomu ndaanaan la donc ndaanaan rek la la mën nekk. Ah, et di waajal événement bu mag boo xam ne mi ngi ci ànd ak waa Bamo Vision. Hmm. je rappelle que l'événement ce sera incha allah pour le 28 hmm. bi nag dañuy li nga xam ni moo di octobre voilà donc moo tax ñoom ci octobre bi ñu décidé dem euh, li nga xam ne moom moo di euh, Sorano ce sera pour le 28. Tarba Mbaye en live et Tarba Mbaye ku ko xam-xam ne live am dafay nice. daanaka ci la gën a ah. mhm. euh, Vision bu baax a baax a baax Bab sama waa ji maa ngi lay bu baax donc rendez-vous bi le la loolu bëgg naa ñu ànd ci sax ma ak yow. non dem incha allah ñoo ko moom comme ni nga ko waxee rek bu ñu nee octobre rose ngeen Euh, jàpp ci loolu parce que nag ku wax octobre xam ne ne euh, am na loo xam ne ni feebar boo xam ne sonal na jigéen yi lool lool lool gis ngeen amoon na ñu fi invité woon ñu daal ci waxtaan et aussi ñu gën a ñi nga xamante ne rek moom mooy population bi pour nit ñi di saytu seen bopp wala sax si sa sax mun nga xool sa bopp comme ni ñu ko waxee woon la dernière le euh, euh, ñëw nag yéen ñëpp euh, ma décembre la hmm. ba pare macha allah ku génn a kër ah ah attends ah mais lii lañ na moom quoi seen yaram dafa tàng et puis dafa baax sax ci bi xam nga je pense l'année dernière ñëw il y a deux ans doon naa ko wax ay décembre dañu doon tàmm artistes yi di génnee on sentait vraiment que mois de décembre bi gars yi dañuy génnee teg événement yi mais là déjà en octobre couleur bi commencé na annoncé wu que ni artistes yi ñi ngi ñëw parce que bëri ay sorties et ça reste d'autres ah, parce que bu fekkee yaa ngi leen di gëstu di nga xam ne ñu ci bëri ñu ngi studio Euh, xam naa ni Prince Art aussi yëg naa ñoom it ñu ngi togg lu bëri euh, on a vu ce week-end des images de Alioune Mbaye Nder qui prépare quelque chose euh, Ibra ak Ibrahima Ndour donc ça ça s'annonce bien ah, noonu la demee rek daal di dem dem seetaane suñuy publicité dem si waat donc euh, soirée bu mag a mag boo xam ne ni war na xewee foofu ca yi gis ngeen ko ak kooku di euh, Dieynaba Seydou Ba waaye dina ci ñëwaat rek ngeen daal di koy euh, waajal Kals doon na loo xam ne sànq ñu ngi waxtaanee si wàllum musique bi comme ni ñu ko waxee rek gaa yaa ngi ñëw ak doole et je pense que léegi képp kuy génnee rek mm-hmm. di nga gestu di nga xalaat xalaataat kenn amul voilà non kenn amatul sax droit di génne du n'importe quoi daal di koy teg ci marché parce que tamit euh, <laughs> ñi nga xamante ne jiitu nañ leen donc dinga ci mm-hmm. bàyyi xel bu baax a baax mm-hmm. non seulement concurrence bi dafa dafa dafa metti mais aussi la qualité la xam nga léegi ak la nouvelle technologie ak fi jamono toll ci ci doxinam mhm. euh, léegi moyens yi nit yi am nañ ko euh, technologie bi gën na avancé te booy liggéey da ngay xalaat non seulement le son la qualité et plus les images maanaam la mhm. vidéo te loolu gis naa ni suñu artiste yi macha allah ay jàmbaar lañ ci nag ah, ay jàmbaar lañ ci ni ngi góorgóorlu maintenant tu peux rester ci télé wala ci net bi di seetaan ay clip Sénégal yoo xam ne des Sénégalais bien bien bien de chez nous réalisé ko fii ci biir réew mi mhm. mais avec une très bonne yeneen dëkk yi mais liy des tuuti rek mooy comme on disait tout à l'heure fexe ba suñu musique bi tam quand ñu mën ko consommer au niveau international important waxuñu ne nañu bàyyi mbalax bi mais nañ li nga xam ne tendance la te buñ ko génnee mën ko jaay waaw daf ciy baax waaw ñi lay waa baaxu bi ñu ñëw tey <laughs> foog ñu ñëw si musique ñëw rek dañ ma ba rek ñu xam ne xam naa ne euh, est-ce que bu boobaa sax du may ëlbatiku euh, simbi leen bu ñu fi benn place. déedéet kay baadu xam naa de bu boobaa man maa leen di. man maa leen di man leen di mujjee simi mhm. euh, kon nag euh, ñu ngi jaajëfal képp ko xam ne rek yaa ngi toog di ñu seetaan et di nuyu rek ma fille adorée depuis Paris dëkk boobu di moom kooku di madame Diaw uh, Fatmata Kandé ak uh, sama turandoo ah kooku sama biir xol la kooku mooy sama doom nag ah sama turandoo boobu Beseel Beseel Diaw Farama Diaw Xor maa ngi lay nuyu je te fais coucou ah xam naa léegi mu ne maman c'est maam oui la grand maam ma waroon tegal fii seize jëm naa mag ah xam ji neex naa maamoo ah, ah waaw gis nga ko déggoo ma dëkk voilà keroog mu ne yaay ji mais est-ce que c'est ma grand-mère elle est trop petite pour être ma grand-mère macha allah <laughs> donc ma ne ko macha allah maam du tuuti xam nga léegi xale yi dañuy teel a màgg ah ah ñees yi donc bu ñu amee doom rek te man dama bëgg yooyu waaw man dama bëgg lool sax man dama bëgg ay maam ñu may waa ñu may wooy man dama koy imposer nañu may wooy maam ko ah. donc ñoom ñoom maa ngi leen di nuyu di nuyu waale aussi kooku di sama beneen sët bi Awa Jaw nuyu nag sama yeneen sët yi nekk hmm. Bordeaux kooku di Serigne Saliou ak Cheikh bi maa ngi leen di ziar je vous fais coucou mes amours yéen moom samay c ngeen ñoom tamit maa ngi di nuyu lu bëree bëri alors man également maa ngi nuyu sama sama gars yi ñoom Cheikh. Mhm. ah Cheikh euh, Cheikh El Hadj Cheikh Yatassay donc maa ngi koy nuyu. ak Baba ah, ah maa ngi koy nuyu bu baax ak le grand Mamadou Yatassay kooku moom sama papa la. waaw qui nous regarde ce matin. ku baax ku baax la Mamadou Yatassay di ko nuyu bu baax a baax a baax qui fait beaucoup de choses également. Euh, pour cette jeunesse il a l'habitude de le dire. un jeune une solution moom si ñu ngi koy nuyu bu baax a baax. ba pare ba pare nag di ko def ci suuf. di ko def ci suuf ah, voilà social la. am importance la ce matin mi ngi seetaan ak équipe bi yëpp mhm. donc Mamadou Yata Sarr ñu lay nuyu di nuyu également toute l'équipe ak waa suñu pour demee yëpp ñu ngi leen di ziar bu mhm. baax a baax a baax dafa mel ni de ah. waaw tàggatoo est-ce que duñ dem RFM yeggali ji ko commencé. Eh, gis nga yow nag bu fi indi bu fi indi benn. benn parce que xam naa ni. njaga seetaanu la. <laughs> buuba déggu la <laughs> yuusu déggu la. li nga est xam nga benn affaire. xaw ma ndax xam na ko li nga ah. fii. Ah. ci rajo ba nga ko gën a man man man aywaay aywaay. li nga dëgg xam nañ li may wax. aywaay ah ñi ma xam dëgg. xam nañu li may wax. on va il nag ma defaat animation rajo parce que y' a tellement sax nga mosal ñu benn. ma mosal non dinaa la ñëw ñaatam woon na ba ma sonn. ñëwal def loolu non dina ñaatam ñëwal ci non dinaa ñëw si yow yow dinaa dinaa dinaa dinaa ñëw si yow. y' a tellement de gens qui me demandent da nga war defar rajo bi ma ne ay waay bu ko Youssou dégg dégg bu ko bu ko Assane Gueye. Assane Gueye tamit ko war a dégg nag. non Assane Gueye bu mu dégg non man mosuma def rajo de. Assane bàyyil bu ma ñëw naa la wax lépp. <laughs> voilà donc c'est un, grand plaisir franchement ñu retrouver la calme nga ànd ñun euh, franchement donc kontaan nañu ba du ñu jot sax on trouve même pas ñu koy jaajëfal moom it lu bëree bëri jaajëfal aussi équipe bi nga xamante ne ñoom la ñu àndaloon. Khadija jiite ko As ak euh, keneen ki nga xamante ne moom daf ma lakkale foo gaaree fii mu ne ñoo gaaree nii ah yow xam nga sa bopp. <laughs> ok jaajëfal donc jaajëfal ñëpp ñoo xam ne ñu ngi doon seetaan euh, di leen jox rendez-vous incha jeudi bii di ñëw di Sénégal dëkku bi ne jaay mooy sunu sama bës yi bëgg naa leen di Sénégal dëkku gay ne mooy sunu gaal te ci junne dësil dëggal ma